suñu mbokk internet Dakar Midi nuyu leen char leen di leen jox seen wàccuwaay euh, liñ leen tàmmal rek du jeex du dañ saa su ne ak ndaanaan bi ñuy invité seen émission tribunalu aar bi kër géwél yi ëttu ndaanaan yi tey nag ñu seet siwaat beneen ndaanaan euh, ñu koy wax Ndiogou Ngom Euh, surtout Yandé kodu seen ndaanaan xale bi xew ci jamono di def lu am solo ci aar bi yaakaar naa ne soxlawul sa wax ji di bëri dama koy bàyyi mu présenté wu mu wax leen moom mooy kan. Ndiogu nay nañ la. naa la El sama xarit bi ci loo nekk maa ngi nuyu waa jaxaw di njëkk nuyoo bi di ko ci sama sëriñ Baay Jili Fall. doomu sëñ Cheikh Ndigal Fall di nuyu sama yaay ay da Mbay di nuyu sama papa ji nga xam ne yal na ko yàlla xaare àjjana muy Ablaye Ngom sama maam ji nga xam ne yal na ko yàlla xaare àjjana yande ko du seen def di nekk ci aar di lan naan kontaan naa bu baax a baax parce que ba ma fekkee ci bës parce que maa ngi nii ci programme yi Ndakaaru nga fekk ma ci bës nee ma faaw ma ñëw ñu def li war damay kontaan ci lool lool El Hadj naan nag ah kontaan naa bu wér. waaw kooku mooy Ndiogou euh, Ndiogou ma laaj la benn affaire balaa ñuy dugg ci liggéey bi géwél nga n'est-ce pas. ah surtout Yandé Codou Sène kenn du ko laajte géwél nga. lan mooy rôle géwél. rôle géwél mooy géwél ci ndey géwél ci baay géwél ci maam géwél ci yumpaañ. géwél ci lu ne rolu géwél maanaam géwel lu tax ñu naan géwél rolam li waral ñu naan géwél rolu géwél mooy ndax xare bu amaan géwél daan jiitu dékku baleya ndax su ma fàttalikoo ci li ma sama papa doon wax ndax xam nga man may fara junjung damke nongal ne jaxaaw siin fara junjung boo ko déggee mooy sama maam moo doon jiitu bursin Kumba Ndoofeen Juuf topp lépp loo xam ne buur def na ko sama maam daf koy seede ba pare daf koy wax ba pare jiitoog nag sabar yi di def lu doy waar jiitoog junjung yi mooy sama maam di gorbem moo waral may may wax ci samay sawun naan ngoro mbisaan yaa njuug jaña jeg fa waagaan ah fara junjung dam ken no ngel ne jaxaaw loolu mooy fara junjung mooy ki nga xam ne tey moo doon jiitu biir top duñ ko jàpp mukk ci pencum jaxaw parce que avant buur moom la moo doon jiitu ndax moo doon wone buur di feeñal buur waaw kooku sama maam moo ko doon def loolu nag mooy roolu géwél loolu mooy roolu waaw ñu fekk la ci sabar yi euh, te jamono ju léegi euh, damay dégg ñu ne tëggam sabar mi dafa yàqu parce que sabar bu njëkkaan dafa am loo doon léemu pour ubbi am looy léemu pour tëj ñu ne léegi loolu lépp amatul léegi ndax mun nañoo dégg tàggu mbaar liñ naan tàggu mbaar nga wan ñu lan mooy tàggu mbaar ba pare ñu dugg ci liggéey sabar bu njëkk ci liñ ma jàngal da def yaa ñi moom ba pare soo paree ci yaa ñi moom ah hmm. nga dog a bàkku mbaar acca gaa yaa ñi moom waay sax lii nga def nii moo tudd nan loolu moo tudd Baara Mbaye loolu mooy Baara Mbaye waaw mais avant Baara Mbaye da nga def yaa ñuy moom ba pare ba pare waaw parce que booy dugg ci kër day fekk nga nuyu borom kër ba pare yaa ñuy moom lan la ci sabab yaa ñuy moom daf ñuy léemu léemu day léemu ñëpp day léemu géew gi ba tax na safaan bépp bu ci doon am itam daf koy saafara ndax ku ne xam na ne Serigne Bamba moo nu moom te yaa ni moom moom firndeel la yaa ni moom mooy ki moom ñëpp mooy sunu borom ki moom ñëpp moom moom moom ñëpp looloo waral ñu naan yaa ñi moom. bi nga paree ci yaa ñi moom loo ci teg. bi ma paree ci yaa ñi moom dama bàkku mbaar nuyu waa àdduna. bàkku mbaar tàggu mbaar. waaw dama tàggu mbaar bàkku mbaar. bàkku ak tàggu mbaar ak tàggu mbaar. lan mooy différence. différence bi mooy tàggu mbaar mooy maanaam ci li ñu nekk ñun dañoo nuyu sabar yi loolu mooy tàggu waaw ci liñ ñu jàngal ci aar mooy dañoo tàggu mbaar bi nu paree ñu doog a fox parce que da ngay dégg ñi ñu naan mbar mbax ceex ay reex ay pin affaire yoon noon loolu li ko waral mooy tàggu mbaar ndax li nekk si jamono mooy tàggu mbaar mais bàkku mbaar mooy dañoo dañoo nuyu sabar yi nga xam ne ñoo ñuy teral moo waral ñu ñu tàggu mbaar loolu tàggu mbar bàkku mbaar nag mooy li fi nekk. mais tàggu mbaar c'est normal mu am ci tëgg wala. tàggu mbar se normal moo am ci tëgg parce que jamono ji ñu toll boo tàgguwul mbaar kenn du la dégg. mais ñiy tëgg te duñ tàggu mbaar. ñiy tëgg te duñ tàggu mbaar waaw mais xëy na dañ koo jàngul ñàkk a jàng rek sama xarit bi wax na loolu. dañ jàngul tëgg. waaw dañ ko war jàng. lu am importance nga noonu tëgg dañ ko war di jàng maanaam parce que nit lépp looy jàng rek nga fexe nañ ko mën Youssou Ndour waay na ko waaw booy sàcc sax na nga li ngay sàcc na nga ko tëgg dañ ko war a jàng de du ay foo de barke Serigne Saliou lii métier la mais dañoo gis ne léegi ku jóg jaa ngi tëgg waa parce que léegi art moo yàqu art bi yàqu na léegi lépp a yàqu sax léegi dafa yàqu parce que ku nay géy ku nay way mais kum ku boo jàngee di nga mën farfos di nga tari waaw ku jàng di nga mën kon gars yi dañu war a jàng mais njogu li nga yor nii ban sabar la nu mu tudd li mooy sabaru nder ndeer waaw li mooy sabaru ndeer mais mag ñi tamit ñi ngi kaas façon foor bi for toile bi mais mais mais ndaanaan bu toll ni yow lan moo tax nga yor tey lu mel ni ndeer der ne fi nga war a fooree der fooree woo der nga fooree xam nga àdduna dafa doy waar te jamono dafa changé léegi ndax tey ñun yàlla dafa def kar macha allah yàlla dimbale nañu ba tey bu nu tëggee tey suba dañuy tëgg gannaaw suba dañuy tëgg te der der bëggul toq toq nawet mais naw ñu si nawet non maanaam ñun dañuy nekk si nawet mais der bëggul toq toq nawet ba pare teg si même bu nekkul si nawet xale bu rombee sax bu wisee ndox si der bi der googu buñ ko tëggee bu sunu yaram tàngee mu béy sabar yàqu ba tax na jamono toll na foo xam ne tey programme yi bëri nañ benn peeru bari boo xam ne dañuy mujj obligé dañuy bëgg lépp neex moom mooy waral ñu créer lii def booru jëmbe te léegi léegi nii tey programme bi léegi li may def nii su jeexoon nii léegi mala jeexagul ma pare interview bi war a doxal programme bi léegi Serigne Touba xam na ne bu lii woon taj léegi léegi ma ma ma foor ko léegi mu tëgg léegi. ak lii nga lii ma koy fooree léegi léegi nii mu tëgg mais mag ñi mag ñi magi géwél dama seeti ñetti magi géwél ñoom ñuy jooy ne sabar fa mu newoon démb newu fa tey parce que xale yi léegi duñ tàggu mbaar xale yi léegi duñ tëgg euh, normal duñ tëgg baara mbay gu baax ceebu jën bu baax euh, faas jeeg bu jar ñoom ñu ne loolu yemuñu ci mais xale yi tamit sabar yi ñuy jël di ko foore ay mbuus mu métti leen lool te ñoom ñu nekkoon ay magum géwél daan daan tëgg daan yëngal seen jamono tey ñu toog seen ruq ñoo tëgg ñu gis tëgg mi métier mi yàqu ba ku jóg tëgg ku jóg foor mais est ce que nekkul ne mag ñi li ñuy wax ne yéen a yàq tëgg mi est que dooreewul ci yéen en tant que doomu gi suñu kilifa yooyu nga xam ne ñoom ñoo ñu jàngal li fi nekk ñoom ci seen bopp ñoom daanuñ tëggee lii ah waa mais dañ see mënul dara parce que li ñu wax itam il est parfaitement raison parce que sabaru peeg ak poorum der ak mees dara dàqu ko waaye nag situation bu obligé ba pare art développé ñoom mag ñi dañuy xam ne art dafa développé parce que ñoom seen temps ak seen jamono bu njëkk amutoon cóol ñu décoré ko amutoon cóol ñu gas ko ba mu rafet parce que ñoom dañuy ñëw rek fort ñoom ñoom yi ñu doon yor noonu ay ay doon doon xam nga cool yi ñu doon foor yëpp genre cool yoo xam ne la ñoom nañ am accord rek ñoom nañ tëgg rek ah, par rapport ak jamono ji ñu toll mais ñoom suñuy kilifa yi dëgg lañ wax parce que ñoom dañuy bëgg ñu indiwaat ñu indiwaat démb. dëgg la. mais teewul gis nga Zoss xam nga cool mi gorong lañ ko fooree mais teewul ba léegi sabar tëggam cool mais gorong la gorong lañ ko foor xam nga kii xam nga kii kenn ko xool ba xam ne naan ko sabar la wala wala du sabar kenn du ko xool xam ne sabar la parce que am nay mees am na geño am na xiir am na lépp am na der waaw mais teewul ba léegi tëgg ma fa mu nekk ma nga fa ba léegi baaraam mi ngi fi ceebu jën gaa ngi fi faru jër maa ngi fi. dara changé dara non dara changé bi naan sabar yi lañ changé rek sabar lañ jablisé rek waaw yóbbu ko beneen monde mais ñun gënuñu. Ah waaw gënuñu. waaw parce que dañuy wax ne maanaam son son der. moo gën a neex gën a riis soow ay toile xam nga wax mag ñi ñoom nee nañu soowu der bi moo gën a neex soowu toile xam nga ba pare Xaadim Mbaay barki démb daf ne mees peeg bees meeg ne loolu instant bi gisatu ko ci ci ci ci ci sabar lan mooy mees ak lan mooy peeg waa mais Xaadim Mbaay gis-gisam rek la wax te dëgg la mees peeg moo nekk nii caméraman lii mooy mees peeg lan mooy mees wan ñu mees a ngi nii peeg a ngi nii xiir a ngi nii geñoo ngi nii ñoom buñ la nee mees nañ duñ la waxee peeg nañ la wax nañ la wax xiir wax la geño parce que ñun lii lañ jànge foor lii lañ jànge am tëgg ñun duñ ay nitu ndakaaru ay siin siin lañ waaw ñun lii lañ jànge tëgg ba léegi ñun ci fi ñu nekk ak ci li ñu nekk ba léegi mu nga fa siin la fa nekkoon ba léegi mu nga fa. dara changé wu ci dara changé wu ci parce que boo ñëwee siin yow ñëw nga siin hélas xam nga li fa nekk la nekk siin nekkul ndakaaru li nekk ndakaaru nekkul siin xam nga siin cosaan nga fa nekkoon ba léegi mu nga fa am na loo xam ne ñu ngi koy def biir siin amul ndakaaru te du fi musa am te mu nga fa loolu la yàlla dogal parents yi nag loolu la ñuy wax quoi li nekk siin ak saalum dañuy bëgg mu ñëw ndakaaru te munta nekk parce que jamono ji ñu toll activité moo toll foo xam ne jooni jooni la waaw noonu la demee jooni jooni la tëgg mi da nga ko jàng wala da ko dond deret la ci man deret la ci yow waaw mais mais jàngoo loolu boo nee mooy lan pataas ay galañ la. mais lan lay ci bàkku mbaar la bokk. ci waaw. lii mooy mooy mooy mooy ma maa ngi nuyoo. nuyoo dañuy nuyoo comme niñ defee yaa moom mais dañuy nuyu sabari buñ ne. loolu mooy boo pataas rumbax mooy da nuyu sabari te hélas hélas voilà zel na jàmm yàgg ndax àdduna àdduna dafa doon loo xam ne ñun te suñu bopp ñi nga xam ne jamono ji ñu toll dañu nekk ci aar dañuy toog sax di gis lu ñu métti waaw ñun ñi nga xam ne dañuy nekk ci aar ñun jamono ñuy toll dañuy gis lu ñu métti parce que dañuy loo xam ne jamono ji ci aar bi duñ ci mën dara duñ mën a wax dara comme li Ethio wax léegi rek booy léegi jàngatuñ aar aar bi dafa yàqu léegi barki Serigne Saliou Mbacke léegi nag ci biir loolu yow ci sa bopp da ngay mujj obligé parce que aar bu yàqu moom moo waral ñuy foore tuwaal aar bu yàqu moo waral ñuy foole ñuy def nii di foore jémbe mais yéen géwél yi tamit est-ce que yéen a ngi jàng aar bi parce que tamit xam nga des fois di judd ay doomu géwél leen rek dañu war a tëgg mais ñi doon jàng aar ñu ngi jàng ar ba léegi parce que yow tëgg mi jàng ko man dama tarbiyu galañ dama ko tarbiyu si yaay tarbiyu ko si baay tarbiyu ko si maam ndax sama papa moo doon tëggal buur sin Kumba Ndoofeen samay mag ñoo ma jox galañ ne ma tëggal ku ci mel ni Pape Diop sama mag ji moo ma jox galañ ak commissaire sama nijaay xam kon ci biir loolu ñoom ñi nga xam ne ñooy samay kilifa jox ma galañ ne ma tëggal ñooñu def nañ li leen war sama maam Yandé Codou da doon fecc da doon tëgg sama maam bi jur sama maam bi nga xam ne kay moo jur sama papa kooku moo doon jiitu Buur Sine Coumba Ndofféne Top kon maanaam dama doon ngéwél kookoy gorbem ba pare jàng ba pare jàng ko ba pare doon ba pare bëgg ko nag mu yàqal ma lu bari léegi sa nawlo bi toog dafa wax léegi lu am solo nee na tëgg mi sens wul yàqul nee na baara mbay gi waalo waalo bi ceebu jën bi lu ci ne mu nga fa mu newoon léegi est-ce que mën na ñoo toog seetaan la nga doxal baara mbay ak ceebu jën ñu xool bu ci nekk par une minute rek bu ci nekk une minute wala deux minutes rek ñu xool ñu ñu ñu ñu xool ba xam ndax tëgg mi fa mu neew ba léegi mu nga foofu la neew fa kon ñu dégloo

ceebu jën ak baara mbay nga fi teg lépp normal foofu baax na waaye élage Hadj ñu ngi ñu ngi sant di gërëm bapare pare teg si may sant ñaar ñoo xam ne dañ ma dooleel ba pare dañ ma bëgg ñaar ñoo xam ne dañ ma dooleel dañ ma bëgg mooy kan ak kan muy monsieur le maire Thierno Silla bu Jaxaaw waaw di sama mag di jàpp ci suma carrière hmm. bokk ci man di monsieur le Jaxaw ndax am na benn sound bu ma def def ko clip boo tapé YouTube di nga ko gis hmm. woy naa ko ci mu dooleel ma lool def ci xaalis bu bari elage danga ma fekk ci programme nii looloo tax sax mais yow mënoon na gën a yaatu sax. yow parce que tamit bëggoon na ñëw waxtaan ak yow ci sa carrière. fi nga commencé ba fi nga egsi nii xam nga ñi lay jàppale ñi lay dooleel sa staff sa groupe. kañ lay doon que da ngay ñëw jaxaaw le huit juin incha allahu rabi. le huit juin barke leeru alxuraan da ngay ñëw parce que maa ngi waaj tànn bér gu rëy mais Thierno Sylla boobu ma lay wax noonu mooy monsieur le maire jaxaaw te di sama mag di sama xarit. dooleel ma bëgg ma. suwaat ma teg ci itam ki nga xam ne tey mooy colonel Basirou Ndiaye. sama colonel bi nga xam ne mu ngi biir duwaan di ma dooleel bëgg ma te yàlla tax amul lu mu deful ci man barke Serigne Touba Mbacke mu doon mag joo xam ne daf ma naan man jàpp sa carrière rek moo ma ñor kooku Basirou Ndiaye chéri Eva Anne chéri Adama américain bi ah mbokkum ndey jazz di magi jazz di magi Paseex di magi Xora di magi Malick Ndiaye doon sunu kilifa bëgguñu te yàlla tax sama mag jooju itam mention spéciale basiru Ndiaye mu ngi doxal jaxaw ba pare mu ngi mu dafa yàgg ci social kooku itam maa ngi koy sant di ko gërëm jàpp na suma carrière nag lu doy waar moom itam ma koy ñaanal gudd fan ak wërgu yaram naan kaan yàlla na sa jàmm yàgg grand mais hélas lii dang maa bett te maa ngi nii ci bés maa ngi nii ne la le 8 juin waaj lu rëy. le 8 juin. mais ku la ci ban numéro la lay ma ci programme yi. ki ma soxla ci programme yi na ma jotee ci 083 79 74. boobooy sa numéro boobooy sama numéro. ku bëgg nga tojal ko xewam ne boobu la lay woowee pour jot. mais yàlla baax fi nekk di daj. ayca hélas. yow nee naa la le 8 juin sa bés la yow yaa ko moom. incha allah rendez vous le 8 allahu rabi. yaay ñëw interview bi yow rendez-vous rendez-vous le 8 juin incha allahu rabi waa Dakar midi rendez-vous le 8 juin yéen a moom bés bi jaxaaw siin dëkku Bour Sine Coumba Ndoffène ah yaakaar naa loolu du yomb hélas kontaan continue jaajëf am nañ mbégte am nañ mbégte am nañ mbégte euh, kooku moo nekkoon Ndiogu nekkoon sama xarit sama sama waay euh, sama netu demb mu yàgg lool euh, wax dëgg yàlla mooy def lu am solo nag ci ci aar bi de def carrière am comme ni mu comme ni mu waree tey moom lañ amaloon émission ñu fekkoon ko fii ci parcelle ci benn programme muy tëgg wante temps bi moo ko mayewul moo tax dog émission bi fii euh, tàggatoo joxe rendez-vous seetaan li xew. damaa bëgg nga jëlal ma kii El Hadj El mi. dama bëgg nga jël ko clavier kat bi muy muy suma xarit di suma lépp yàlla def mu bokk ci man moom itam doon suma zimoo tey su ma demee su ma demee tey ba ñëw Ndakaaru bay jouer musique yàlla ak moom la ah barke Seydina Muhammad baax su ma demee ba ñëw Dakar di jouer musique yàlla ak moom la El Hadj Medoune sama xarit sama mag yàlla jaamu yàgg El Hadj dinañ defar moom émission bu soobee yàlla incha allah kontaan nañ tëbu kontaan ko ñu ngi joxe rendez-vous di joxe dig daje ba beneen yoon incha allah ci beneen numéro ci beneen daanaan kontaan ko ciao ciao ciao bye bye merci